maa nii tamit dëgg neexul xam nga cosaani maam daa baax si réew daal lii ay kii la maam mëgg képp koo xamante ne nag tamit ñi amul xaalis ñi rek laay waxal waaw kañ comment faire dama sañse stress americain génnee fii balan ci biir waaye nag damaa bëgg ni ñi de sérieux ñi amul nga xam ne kenn bëgguleen fu ne la ñuy mbaraan bu ñu mbaraanee gauche mu të ñu maraan droite mu të ñu ne xaarale waaye samay mbokk internet ak samay fans kenn bu mu leen mbaraan ku leen mbaraan mën nga koy digaaleel tey moom sañ seen ñëw di doole rek laa def ñu amul xaalis bi boo ngeen jéem a génn ci style bii rek fii daal génn leen fi sa ba may moom ma défilé nii tamit ngeen xool lu ma sañse ma daal kone conné leen xaalis topp mbaraan bi man mës naa gis koo xam ne fenn ma nag dëgg rek laay wax tey dama koo romb ci circulation bi ñu yaakaar ne foo rouge a tàq li mu sañ si yëpp rouge la ñu yaakaar ne deret tuur circulation bi naan accident accident accident ndekete accident wul dafa dégg Saint-Valentin xamul luy Saint-Valentin moom gerefaas beeg létt yaag yaram bi lépp la peinture rouge ñu yaakaar ne daal accident waa <laughs> waye amna ko xamanteni xamante dootu ko defate de awa ale gay borom diwi neena yo yaay diw ku fi leer rek mo la jaay diw mom sax moma jaay diw waye farba nam ko def daw ci Saint-Valentin <laughs> amul bañ defim ne nii posé la def bu signé ki 4 dents yi ñu koy waxe 32 4 dents yi foofu yëpp a màbb tamit baaxul ni da ngay sérieux rek lamul sérieux rek la. da ngeen di sérieux gëm koo xamante ne ni nit ki kii kat bëgg na leen waaye sérieux woo leen ni ngeen def di ànd ak seen fare ñu leen di dóor a ngeen di defee affaire ba seen ŋaam yi dañ ah moom mu ngi ne yaayam faj magam boobu nekk Espagne kii waaye tur ba waay nday xadi gay yaayu kii turu doom yi nag enfant nag Mouhamed daal laa ciy fàttaliku dëgg neexul ah, <laughs> kookoo ko doon faj dangay sérieux nit dangay sérieux rek gis nga xol bii kenn nga koy jox ñaan bugg ko ñetti bugg ko ñeenti bugg ko kenn kese moo ko war a am Iran Ndao tamit topp na da ci waaraate da ngeen di bëggante sincère ñi amul tamit te kenn bëggu ngeen jéem a woo nii rek moo leen ni léttoo mbëgg léttu mbëgg yokk ko nii dagg ci seen greffage yi yokk ci dina baax fii de génn pour ñu amul dara sañ see néew di doole <laughs> ñi nga xamante ne dañoo paan bëggee <laughs> nit da ngay de il faut connaître les choses il faut les choses en son temps ah l'amour tamit en son temps waaye topp tamit kam la <laughs> waaw ah. kooku kan la ah dangaa seetoonaan émission émission <laughs> bi mm. yow fo nek kan la si lo bien ki mais wala so wala ti <laughs> kone yow xawma ma la ngay xaar ngay aral non di dul <laughs> loolu daal laa amoon ci li ma leen di wax gis nga nit dangay sérieux jël sa xol bi ah bàyyil woote bi nag <laughs> allo voilà <laughs> kooku ñi ma daraame boroom Amérique Ah, yow de mooy bon <laughs> yow de loo dugal xam naa ko loo dugalul xam naa ko dangaa baax nag <laughs> nekkoo Amérique di seetaan télé mhm. <laughs> ana Faat Ndiaye mi ngi an Angleterre ah moom it moom it seetaanul télé de jigéen ju mën góor la day liggéey de aka ñoo baax ñooñu Gàmbi lañ dëkk seet ko ne war ngaa sàlli nag les choses daal en son temps comme nii rek boo amul daal dangay dem jënd body bu 300 baa bu 300 lii seerul lug marque la marque boo demee ci fëgg jaay 500 francs rek lañ la koy jaay 500 francs nga am dal nga abé noir ak li tam dañuy and bo génné rek fofu toj bo amul tamit kenn bëggul la li rek ngay sol waye di bëggante di bëggante aw alain mom dootu ko defati waay dootoo ko defati de ah xote wax yaa Seyda <laughs> kooku du bëggante <laughs> day waaraate <laughs> moom du bëggante moom day waaraate day waaraate kañ ah ndax am na xol am na xol kañ xam nga diine yëfi diine ak yëfi caaxaan boo ko boolee rek yow moom na sol solu kii rek ku amul dara rek <laughs> waaye kooku day waaraat te kooku faram du ko dóor <laughs> ma ne awa alee ko ko jiiñ <laughs> yow la alhamdulilah rabbil alamin kon kon internet yi mooy wax nag ba sama gémmiñ gi di fuur moo xamoon sax lu koy faj kone ne daal <laughs> ah c'est bon sama <laughs> réalisateur bi de sama <laughs> réalisateur bi dafa aay nag fu ne lay génn nag man de waroon ngaa génnee sama kii nag tey moom damaa sañse moom damaa gën a sañse cosaani maam daa baax ci réew boo amul dara amoo loo lekk amoo loo naan farantu nga ba sonn estati façon estati bu ne ding ko estati bëgg goor ñi bëgg la té duñ la nop nit ki da ngay sëré rek il faut am cœur propre cœur propre il est bax tout waaye tu n'es pas un cœur propre ti fé ki rek viol yi ngay dégg yoy yëpp ñu ngi ci kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ñu maasale ko rek ba beneen yoon sama fans yeeg mbokk internet yeeg <laughs> mbokk sinam yeeg ak kii nu mu tuddati sax kii bi fi artistes yi di nekk rek dama fàtte tur bi <laughs> messenger du messenger de <laughs> kii ki kone daal xamu ko mi ngi bëgg a ñëw mais nag <laughs> yes Westagaraam <laughs> mbokk Westagaraam yeeg ci kone moisé kone tuude kon ñi bëggante ci weeru l'amour bi beneen émission rek revenir le choses yëpp Instagram le kii simangeur simangeur ak kii រសនាសាតាមប្រមុខនេះ